Dakar waa 221 amati nañu mbégte bu baax a baax ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci yonent bi mu mel ni nag yéen a ngi ci émission bu mag bi di pencum làmb pencum làmb nag dina seeti képp koo xamante ni rek di nga yëngu ci làmb wala nga bokk ci coow làmb tey nag nu seet si koo xam ne dootuñu ko présenté ci réew mi dootuñu ko présenté aussi ci digganteem ak moodu xarañ loo Siré Khoudia Koumba Gayndeel Khoudia Koumba Faaloo Khoudia Koumba teg waa nga ndaam di wan xarañ loo wan xarañ loo ñëpp xam ko nag mu den euh, nit koo xamante ni star la ci li muy def tey boo xoolee bari na artistes yoo xamante ni am naa ñoom li nga xam ne nii mooy link bu neewañ ne wan bu Kéba Seck bu neewan ne wan bu Waly Seck waaye bu neewan ni wan bu Momo Dieng waaye buñ neewan aussi ne wan bu Sidi Diop wan ñaa xarañ loo dama lay nuyu. Eh, Bamba lay ziar. dolli ziar kontaan ci dara. xam nga ni takkoo veer yi juróom-ñaar. non maa ngi sa ginnaaw rek mais bëgg naa nag. salaamaaleykum di nuyu waa Dakar waa 221. di nuyu sama waa gox bi ngeen ma fekk muy yëmbal fi nga xamante ni fii laa juddoo fii laa màggee lépp fii la xewee fii laa jóge dem fépp dugg fépp gudd gudd yëmbal la. di nuyu sumay ñaari waajur Ousmane Kane Fass Samba sumay frère di nuyu suma xarit ji ngeen fi fekk waa Yëmbal di nuyu Sénégal képp kuy seetaan dakaar 21 rek 221 maa ngi lay moom bi ma ko jëlee euh, dama bëggoon ànd ak moom ba ci Modou xarañ lo waaye dani ma dafa am fu ma juddoo màggee fa fekk fa baax ñooñu tamit dégg bëgg Modou Lo lool ba tax na toon tey téléspectateurs yi ñu ngi fi nga xam ni nii mooy yëmbal bu ñu nee yëmbal mu bokk ci xolu banlieue bi noonu la ñuy def di ziar képp koo xam ni doomi banlieue bi nga waaye wan Euh, ma bëggoon xam lan moo indi wan xarañ loo sa diggante ak du xarañ loo euh, ñëpp xam la nag euh, nga nekk wan waaye bu nee wan ne wan moo du xarañ loo waaye itam fii mooy sa base fii nga juddoo fii nga yaroo fii nga màggee waaye ndakaar wërngal képp ñëpp xam nañ la te ku la xam-xam la ak du xarañ loo lan mooy sa relation ak Modou xarañ loo waaw Modou xarañ loo kooku nekkatul ma ak moom diggante mbër ak supporter Modou Lo léegi suma frère la dafa dem ba bokk ci man famille léegi man ak moom famille boo xamante ni nit mënatu ci dara parce que wan xarañ loo ñëpp xam na ni musuma bëgg ànd ak benn mbër mais yàlla moo ma booleeg moom te yàlla mu ngi ñu boolee ndakaaru ma nekkoon jeune boo xamante ni damaa jaar si lu bëri tu vois dama jaar si entreprise jàng métier jaay jaar si lépp moo dem def ambulant moment bi may def ambulant moment. galère quoi. yee galère banlieue boo fi nekkee da ngay galère. yee dama galère sama life man nag loo ñu bëri dama galère parce que man moo amee dama def CM2 ñetti yoon xaw ma deux fois yàlla def ni man mënu ma woon jàng samay waajur teel ma génne école ma dem concentré aussi métier ma def soudure métallique ba mokkal ko nag franchement mais continué wu ma ko ma bàyyi loolu nekk si business yu ambulant di jaay ay parfum ay ay t-shirt ay Modou Lo mu def lu ma marqué parce que je me rappelle bu ñu suñu xamante ma moom maa ngi ko fekk si benn salle de musculation bu nekk si cité Mixa muy entraîné mu xool ma ne ma booy lay ma ko man ay yére laay jaay jour boobu Modou Lo dafa jënd yére ma doon jaay yëpp léegi bu ko jëndee pare ñu échangé ay numéro amante ay contact tu vois à fin yàlla booy boole ay nit nag foofu suñu connaissance xamante mu bëgg ma mu bëgg ko léegi man mosul woon nekk sama mbër moment boobu laa jël sama xol ak sama lépp jox ko parce que man dama sensible. ndax geste bi mu def. woon bi ba pare mu bëggoon dara Modou Lo ko doon faral faralu ma ko woon quoi man bu mu ñëwee yëmbal benn jour dañoo sàccoon téléphone am mbedd face mu ñëwoon police yëmbal imagine-toi man ni mu ni ma bañee woon Modou Lo bëgguma woon si Modou Lo dara mais lu war li yàlla boo waree boole ay nit kenn mësu dara jour daw topp Modou daw kontaan di photo moom te ma nekkul te nekkul woon sama mbër quoi en fait fa la affaire yi mu jël sama numéro di ma woo ma koy woo ñu xamante ma koy seeti may seeti ñuy déggante mu may joxloo ay mission xam nga daf ma xaritam daf ma rakkam xam nga may dem këram xam ay soxnaam di ko nuyu waala moom Modou xarañ Lo roi des arènes di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal wér di ko ñaanal ay njabootam di ko ñaanal ay soxnaam di ko ñaanal ay am di jàmmam waaw Modou nit ku baax la koo xamante ni moom rëccu ma lu ma ko xamee rëccu ma lu ma ko fréquenté rëccu ma lu ma sonnee si moom rëccu ma aussi sama tur lu ma ko jëlee boole si wan xarañ loolu ndax jig na ma loolu nag ku waxul dëgg wax fen jig na la lool waaye ku nekk xam na ni euh, coow lii la mbéréew mi mooy combat bi nga xam ne nii dog na dox na ci diggante ki nga xam ne mooy Modou xarañ loo ak Boy Niang euh, ñu bari daan nag combat bi yàgg ngeen a daw Pikine waaye mujj ngeen a ñëwaat Pikine ndax ku nekk xam na ni Ama ak Modou loo ci physique Ama pare woon na waaye léeg-léeg ñu ne Modou moo parewul léeg-léeg ñu ne Ama ñoo pare lan moo tax ngeen bàyyi fi ki nga xamante ni mooy Ama Balde dem jëli Boy Niang combat bi daa gën a yomb ci Boy Niang jafe ci Ama de wala waaw ah, loolu ma si wax waxaal la rek. loolu nag ñoom ñaar samedi ak dimanche la. sinab yi ngeen di gis TikTok yëpp Modou di ko def moom mii la. ñoom ñaar ñoo bokk dëkk mooy xaritam doon conseil am ah, dégg ngeen fi ñu ànd ñoom ñaar ak bi ñu dalee ànd ah, donc lan moo tax ngeen daw combat bi ndax combat bi ñu bari nee nañ combat Ama Baldé la woon waaye dangeen ngeen koo daw yéen waa parcelle. non loolu moom ay wax waxu waxu far la rek. ñëwal rek nag xol wana bàyyi say ngay def. xam na ni ku dee ak sa bàmmeel billaahi wallaahi taalaahi man aw ma rus naa téye ay micro ñëpp di ma may fen aw ma am naa loolu si am naa gàcce si loolu te Modou Lo tam ñëpp xam na dignité am na personnalité du ragal ku xam Modou xam du yàq làmb du kuy daw. ñu da koo jekk jekku ci xam na ni Modou Lo préparé na combat mu def suñu jàkkaarloo def États-Unis ñoo ko ni Ama baaxul. man li may wax waxuma ko ay waxu fen damaa dem kër Modou Lo toog ak mu jógee États-Unis Modou Lo génnee wan ma fu mu blessé ak ni mu blessé wan ma lépp ba pare seeti naa ko këram bu mu ñëwee loxo bi toog na ay presque weer yoo xamante ni mënu sax solo boobam yére. loolu du stratégie rek. barki alxuraanul karim billahi wallahi tallahi yàlla bu ma teral samay ñaari waajur yàlla bu Modou Lo amati ndam si àdduna bu fekkee Modou Lo blessé wul woon bu fekkee Modou Lo dafa woon dafa di tappale yàlla bu mu amati ndam si àddunaam barki alxuraan blessure la jógee dem di entraîné ay entraîné ba blessé ñëw Sénégal toog gars yi jox ko mu war a dem toog ba am repos médical am soog a ñëw yàlla def amaa Baldé bi nga xamante ni moom la waroon bëreel Ama Baldé jël beneen combat muy Gris Bordeaux comprendre nga bu mu jëlee beneen combat muy Gris Bordeaux ci diggante bi yàlla may na ko tan ak wér comprendre nga yàlla may na ko tan ak wér bu ko yàlla mayee tan ak wér nag Ama Baldé am na combat Modou Lo jël Boy Niang loolu rek la te Modou Lo moom moo yàgg a zibilé booy moom moo ne man bëri naa samay mag bëri naa samay morom te ñii sax ay moromam rek mais moom moo jox booy sens ne day bëri Ama Baldé moo ko wax su ma jëlee roi des arènes damay bëri ñoom Ama Baldé ñoom Boy Niang Pikine la teg euh, bi gaaw a jug parce que bëri na grand frère Eumeu gis ngeen daan na ñaari yoon waaye booy ñaane xale màgg na te guddi guddi Pikine ñu gis ñi ko encadré euh, combat bi jalal na leen lu ne ndax Pikine yàgg nañoo soxla dugg biir parcelle rawatina nag mu doon combat boo xam ni combat combat royal la combat roi des arènes la ñu gis booy ñaa jamono ji ñu nekk ci ginnaawam ndax bi ñu ko joxee combat bi déggool dani xaar ma wéet ak samay mbokki bopp daal di waxtaan ak ñoom euh, donc waa Pikine ne waa Parcelles du duñu bouger combat bi guddi guddi Pikine la jëm lan nga leen di tontu ñoom. non xam nga Pikine moom ñoom dañoo am. daa mel ni daa mel ni Modou fi mu toll nii combat bi da cee tiit parce que euh, combat ni mu waroon amee bës amee ko dafa mel ni Boy Niang moo gën a jekku parce que supporters yi wax nañ loolu nee nañ ñoom yéen moom tey combat bi du ngeen wax du ngeen bëre du ngeen jàpp du ngeen daan du ngeen dóor. xam nga Pikine moom dañoo baax a benn ñoom seen lépp coow la ñoom coow rek am si lépp Pikine cooweeg Balla jël na ndam li wan. non du loolu ñëwal ci bit bi rek ñu waxtaan. wallaahi en nag dëgg rek bañ naxante ñoom waa ñoom waa Pikine ci boobu xam nañ ni Modou du fooyee bés Modou ko xool ko rek maa naa Boy mais Modou xool guddi toll nii xam ne état bu mu yor nii gëj na ko am ci àddunaam man ku waxul dëgg wax fen Modou Lo ñëpp xam nañ ni mu ngi si état am na doole mun na bëre am na gàllaaj am lépp. ñaa Niang nee na xale na ta màgg na. non Boy Niang xale nee na te nee na ku nekk xam na ni Modou Lo euh, kenn rek la lay moytu ci làmb ji muy Balla mm. ta Balla gis nga ni ko booy Niang def kon revanche la waat tamit ci diggante euh, Modou Xarañ loo ak Balla Gaye ci diggante géej a waay ak Pikine combat royal mais boo xoolee xam nga xam nga tey bisu bisu Boy Niang bi mu ne la Pikine muy Ama Baldé muy Boy Niang ak ku munta doon Modou loo bis bu taxee ngeen bu dugg si biir géew bi ngeen xam ni mooy moom lamb korog war na ne ko bu mu ñëwee stade nga xam ne na moon na ko mel ni Modou Lo parce que lépp lu làmb la da koy joxe ambiance doole Modou Lo musul bëre ba ngay cim Modou Lo xoolal combat moo Gris Bordeaux xoolal combat moog Lac de Guiers xoolal combat moog moog moog moog moog ta moog ñu euh, tudd sax bu ko Balla di daan xoolal moog Bombardier bu ko Bombardier di daan da nga xam ne kii am na jom am na fula te Modou il est sérieux Modou ni loolu nga nekk boo xamante ni chaque jour day liggéey wan eh, tontu li gars yi di guddi guddi Pikine ah, waa Pikine tontu leen ñi ngi lay ko Aziz Ndiaye ah géwél bu silwiise ah Modou nee na ko Modou nee na jooyaat Boy Niang di jooyaat ndax moo yaa ne ko dafa jooyoon contre Eumeu Sène moo ko di nga jooy Boy Niang bu jooyloo na Balla non Balla Gaye ak Modou Lo bëri na ñaari yoon Balla Gaye champion la ñëpp nangul nañ ko ko daan na Modou Lo ñaari yoon ñëpp nangul nañ ko ko mais tamit Balla Gaye si boppam boo ko timéroon ay micro la xam ne dina la xamal ni carrément Modou champion Bombardier ak ñaari ko Balla Gaye daan. Pikine ne Pikine ne quatrième défaite bi Boy Niang Boy Niang la. te su yàlla fii laa ko waxee. dakaar waa 221. wallaahi azim kuy xaar defatu Modou Lo ba yow nga dee te am doo ko gisaat. ngeen waajee komba bi ci côté physique euh, ci côté aussi li nga xam ne ni mooy mystique ndax jamono ji gis Modou xarañ loo euh, jafe na lool euh, gis leen moo gën a yomb yéen ñi nga xam ne nii yéen a sës ci moom loolu moo tax tey ñu def déplacement ñëw daal di jël la daal di waxtaan ak moom guddi yu Modou ci lan lañ ko mën a xaar ak ci lan la Modou nekk. en tout cas li ma mën a xamal mooy moo ko wax ma dégg kenn nettali ma ko am naa si ay vidéo sax ma wan xarañ loo ma ne ma combat bii boobu sax moo ko Ama Baldé ñoo waroon bëri mu ne mooy sama première ma jëlee roi a génn pour bëri ji jàppal ni mooy combat bi ma gën a bëgg sama àdduna yéen supporters bëgg ngeen ko trop soxla ngeen ko trop mais maa leen ko gën a bëgg maa leen ko gën a fonk parce que fu mu may yóbbu la te roi des rus naa ko jël di génn sama première sortie si am defet dalal sama xel de de un de de de un de deux Modou chaque jour que jëfee dina def trois séances day entraîné day dem contact day dem ay din nga xool ko gis état bu mu nekk yow yaa ngi gis samay set non yaa ngi gis Modou Lo xam ni kii boo ko xoolee xam ni Modou Lo bu fi nekkoon ak Modou Lo bi am na màgg màgg bu am ci diggante. ki muy bëleel nag xale la. xale màgg na. xale la Boy Niang. ñëwal ci loolu wana. Boy Niang nangul naa ko champion am Boy Niang gëri la doomu dégol la doomu mbër la Pikine la dëkk def ay preuve am moo tax moom Modou Lo ñu daje ku nanguwul champion la bu ngeen bëree ñu daan leen parce que bu dee làmb ci ñoom la baaxoo bu ngeen indee dóor yi tamit Boy Niang ku nekk xam na ni fi mu toll nii mi ngi entraîné boxe au niveau de l'Amérique préparé na combat bi ci bépp côté nan ngeen jàpp ni moom ngeen war a mën indi pour daanee ko ki nga xam ni mooy Boy Niang. Modou moom yaakaar naa day yokk cere dolli ñaar rek mais lim la indi moom dara du si wàññeeku day yokk cere dolli ngi yokk doole bu dee contact lépp lu làmb ji laaj Modou Lo koy def bu daree génn day dem ndax yàlla def na ni moom entraînement yi moom billaahi wallaahi tallaahi musuma gis jour bu Modou Lo xëyee te demoon entraînement wallaahi azim ku dee ak sa bàmmeel moo dimanche day entraîné lundi mardi amul jour bu muy tëbal nekk la loo xam ne ko bëgg li mu gëm la ak li mu bëgg la te respecté na ko fonk na ko léegi yow boo jegee Modou Lo yow nit ñi bu ñuy wax xol day sedd bi nga xam ne yow ki nga nekkal moom du wax Modou Lo nekk su ay pour nga gis nga yow ñaata at yaa ngi ma topp pour kin kenn yabu leen a kenn yabu ñu te ñu mu sa yab ah, ah, deux man en fait man wax man yàlla xam na ni ñi ma toggal nii xam nañ ci dara tey rek ñu bëri woo nañ ma téléphone chaque jour nit ña may woo pour jël ma ay interview mais man je suis pas trop man nekkul chaque fois damay nekk di wax ci làmb parce que nee sama diggante ak du làmb nit ñi ñoo dem ba xam ma si moom si làmb ji sax moo tax ñu may sonal di ma seet si yow ñaata temps lañ ma njëriñ li ma jàmm Modou fu ma woo ma fekk fa lu mu jar ma def ko bu ma woon sama xaj bi bu léegi Boy Niang nga ko tuddee ah Boy Niang laa ko tuddee Boy Niang laa ko tuddee Boy Niang laa ko tuddee parce que Boy am na respect mu na liggéey nice jantal booy la mais dafa laal laalaake alaake gi mooy moo mooy Modou xarañ loo neex faral dimanche l'enfant a Parcelles l'enfant de Lac Rose l'enfant de Yoff ah l'enfant de yëmbal ndax léegi Modou dafa bokk yëmbal ndax yëmbal fii nii ñu ko ay supporters ah. ba pare ñu ma jaaxal Pikine la yëmbal gën a jege waaw mais man Pikine moom franchement tamit booy booy booy Ama Baldé yi ñoom tamit du ñëw rejoindre samay xarit lañ man Pikine sama base la Pikine aw ma fa sant interdit Pikine def naa fa lu ne amul lu ma deful Pikine man milieu showbiz laa nekk man Pikine ñëpp ma xam man su ma duggee Pikine loolu laay dégg. ku nekk xam ne nag Pikine fi mu toll nii ñoom ñi ngi ci werante ñi ngi ci werante boo xamante ni neexul kenn ndax ñu bari nee nañ Ama Baldé euh, bi mu bàyyee combat bi Boy Niang waru ko woon a jël en tant que nga nekk sportif di ànd ak ay mbër di ànd ak aussi ay artistes ban message ngay lancé euh, ci diggante Ama Baldé ak Boy Niang. mais Ama Baldé ak Boy Niang ñoo bokk Pikine ñoom la rek seen biir. Euh, Boy Niang yéen da ngeen a dugg ci da ngeen a dugg yëngal ko waaw xam nga daa yëngal Pikine nga Modou moo nekk koo xamante ne ñëpp bëgg <laughs> ñëpp a moom Ama Baldé lekk na avance bu Modou lekk na avance Ama Baldé Boy Niang jël na avance bu Modou Lo Modou Lo jël na avance Boy Niang léegi nag siège baa ngi foofu tegu ku njëkk rek Modou defal la bagage jël keneen Ama bu mu yàqamti Boy Niang bu mu yàqam ñoom ñaar ñëpp dañuy bëre ak Modou Lo ala bu leen fi dee bi bàyyee yàlla leen yàlla may wér may leen gudd fan mais dina ñoom ñaar dinañ ñam. ñëkk ñam loo jàpp ni lay indi victoire wala défaite. non di nga wax Modou Lo défaite. parce que parce bi muy bëreel saay-saay ne ci côté lamb rapidité na ci côté physique am na ko. ci côté contact aussi mbër la te du mbërëntaan. combat bi ñu bari ne combat jànq la. combat la boo xamante ni tey Modou bu deful attention booy bi indi dina indi rapidité lan ngeen jàpp ni yéen tey mën ngeen koo indil waa ndax Pikine fi mu toll nii takku nañu ba dëgër di xaar Modou xarañ lu indi seen mag am seen. seen mag Eumeu Sène bu ñu xamante ni mooy seen mooy seen DG moo leen jàngal làmb moo leen jàngal bëre li ñu ko indil ba daan ko ñaari yoon lu ko raw lu leen indil ñoom billaahi wallaahi tallaahi Modou Lo dafa xam ñi muy bëril ba pare Modou xam na Ama Baldé xam na booy Niang xam na Eumeu Sène xam na ñëpp ñuy bëril léegi nag li war a daan Modou Lo ba Boy Niang a daan Ama Baldé Modou yor na ko te dina ko indi bu dee doole Modou Lo am na ko te mu ngi koy gën a liggéey bu dee contact mu ngi contact bu dee gàllaaj ñi ko war a yor di ko gérer ñu ngi ci def liggéey nu mu waree maanaam Modou bi ngeen xamoon double bi mooy ñëwaat incha allah retouram bi gars dañ ko namm 4 ans 5 ans nga absenté ci làmb ji bu ko doon mu ñëwee stade. ngir ragal ngir ragal Ama dégg naa Ama moo tax mu absent. non Modou Lo moom ku ne la. da jekku ci côté mystique. Ama Baldé xam leeralal loolu waay wana. kare Modou Lo amul ragalukaay nga gis nga man damaa xam ku ma nekkal quoi c'est que en fait wallahi azim côté ragal moom su koy dégg sax du ma sawar a wax parce que Modou Lo papay lamb yi ñu nekk ci lamb langolo yëpp xam na ni Modou Lo du ragal Modou champion la guerrier la Modou Lo nekk na koo xamante ni amul sax tiitukaay man damay tax jomb ci Modou Lo Modou Lo buy génn sax dem ay signature bu ko neexee moom ko si mooy tax otoom dem parce que moom xam na ni moom mbindeef du ko laal parce que dafa see neex sedd la dafa il est dangereux il est dangereux nax ñu bëri dina nax ñu bëree bare bëree bëree bëree bëri parce que tey nag ma fekk si la si sa base aussi ku nekk xam ni booy Diop moom it champion la am huit combats am huit victoire moom it tamit nekk sa boy euh, ban message ngay lancé waa yëmbal euh, ngir que ñu gën a bàyyi xel xale boobu nga xam ni mooy Diop de euh, Modou Lo rek moo fësle mais Boy Diop suma xarit la suma frère la suma rakk la ñu bokk yëmbal yii di defandoo lépp nag defandoo xeexandoo ma ne la émission bi danga ne ma bu ma neexoon defee ko kër Modou wala ma defee ko fi ma dëkk waaye yëmbal la ñu am yëmbal la ñuy tiitaroo bu nu amoon entreprise yëmbal la nu koy tabax la jeunesse liggéey. parce que Modou Lo bu sax day dem yóbbu couronne bi parcelle mais ma damay damay ñibbi si waat yëmbal guddi guddi man yëmbal rek laa am man Modou Lo xeebalu waa yëmbal moo tax ma gën ko jàpp. Euh, kon euh, téléspectateurs yi noonu rek lay demee. di ziar képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel émission bu mag bi te ñu ngi dalal koo xam ne dootu nu ko présenté wax naa ko sànq moo mbër sam samedi ak dimanche tan waaye wax nañ ni aussi mook artistes yu mag yi ku ci mel ni Keba Seck Mariasine Maysa Bigué Lati Diop déggéen mbayi kor Demba déggéen mbayi kor ak Falik déggéen Maysa Pend Taw moom itam ñoom ñëpp di xarit noonu la ñuy def di rendre hommage sunu baay bi Alaaji Thione Seck nga xam ne def na deux ans ci suuf ñu koy jaale Sénégal yëpp di ci di ci profité ci émission bu mag bi di pencum làmb waaye sa relation rek ak artistes yi bëgg naa nga ñëw ci ndax euh, wan xarañ loo fi mu toll nii ñëpp ñu ngi koy déglu nee naa maam Ndiaye Savon yaa ko raw ndax tey boo xoolee ku ci mel ni Kéba Seck ay xarit ngeen ku ci mel ni aussi Momo Dieng ay xarit ngeen ku ci mel ni Sidi Diop tamit ay xarit ngeen donc relation bon ban relation nga am ak ñooñu ndax artiste ku jóg rek ne wan wan multimillionnaire la wala multimilliardaire la wala war kan mooy wan dëgg-dëgg waaw loolu moom dama ci sax xaw a sawaraale tontu quoi parce que Kéba Seck Modou Lo sax dafa ma koy wax Modou Lo nee wan bu Kéba la du wan bu Modou Lo su ma wee si Kéba Kéba na ma wan bu Modou Lo parce que ñoom ñaar ku morom mais Kéba sama papa man doomu yëmbal laa fi laa juddoo mais ndakaaru laa nekkoon nag dafa liggéey nekkoon BMC tu vois dëkkoon foofu xam nga di nuyuwaale sama gars yi nekk ndakaaru yëpp du ma limee damay mais Kéba Seck dafa rek suma baay sama pap la dama lay bàyyi nga daat koy jaale waale euh, sunu baay bi Thione Seck ko di ko wax nii chaque jour ma jaale ko ko nee naa ko yow ñun li nga amee li la métti noonu lañ ko amee parce que Thione ñëpp xam na ni man judd naa ba màgg daan naa ko baali ji penc mi man yàgg naa baali ko fekk penc mi muy géwél waali première partie waali di géwél deuxième partie comprendre nga di ko ñaanal yàlla suuf oyof si kawam saraxam yàgg seen loxo mais Kéba suma papa la papa ak doom la Kéba lu ma ko defal rek defal na ma lu ko raw Kéba lu Kéba damay nekk na ni koo xamante ni dafa maa bëgg ba ma xam ko di ma conseiller day jël téléphone am di ma woo di ma wax ni ma war a doxe ak ni ma war a dundee mu nekk suma baay mooy sama waykat. Kéba dong ah bu nu xoolee moom moo jëng aussi noonu la ah. Sidi Diop it noonu. fa laa démarré moom moom mooy moom mooy capitaine bu ñëpp woote woon moom bosom lay dem ñeneen dañuy xaar mais su weesoo Kéba Sidi suma frère la suma xarit la euh, nit la boo xamante ni ndeysaan chaque jour damay gis mu def ay vidéo di wax si man. naan wan xarañ loo dénk naa la sama njaboot gi bëgg naa la su may way da ngay sentir cofeel la may wayee Sidy euh, Momo moo kooku dañoo dëkkoon mixa aussi di fréquenté may dem këram mu ñëw suma kër ñu nekk ay xarit di déggante moo tax ma koy baal yi c'est que yàlla moo ma booleeg c'est que lu garaaw laa lay wax barki alxuraanul karim man wan xarañ loo sama xol bi ñëpp laa bëgg moo tax ne yow chaque jour ñu naan yow euh, li ngay dundee baaxul parce que ni la ma yàlla bindee nii laay deewaalee man aw ma sens interdit aw ma noonu damaa jàpp ne ñëpp moo bëgg ñëpp laa bëgg barki Cheikhul Khadim billahi tey boo waxee Sénégal gépp dinañ la déggal ndax bari nga ci ay fans tey ku nekk xam ni làmb insécurité ji bari na fi euh, donc war nañu xoolaat làmb ñu ngi koy lancé ministre de l'intérieur nga xam ni suma xarit la moom ak Suwaaya Diagne ay goro lañ sunu directeur maa ngi lay nuyu monsieur le ministre ndax bu yàggul bi ma nee la jëlal sécurité bu mat ci biir làmb ju si revenir nga nu ci combat bi nga xam ni moo dox diggante Sa Thiès ak Reug Reug sécurité bi dafa doy léegi un sécurité bari ci biir làmb euh, ban message ngay lancé ñi nga xam ni nii ñooy amateuru lamb ak waa CNG. waaye waa CNG li ma leen lancé rek mooy avant tout kon stade bi naa lu ñu ko def noonu parce que ñun ñoo ko moom ñu bu ñu lamb man damay solo ba pare dañuy sànce ba jekk yor suñu xaay dagg ay billets vingt mille vingt cinq mille toog pour seetaan lamb cons ko ñu ay amateur lañ ñu lañu ñu xam ni bu ñu yàqee ba set ñëw nga suñu mbër mu ñu ñibbi buñ ñu daanee muñ ñibbi xam ni joxante ay loxo gis nga man supporter Ama Baldé yi barke alxuraanu karim ci sama gars yi fii ñoom jungulee gis nga ñoom Khalifa Laay gis nga ñoom Lamine Marquis ñi may àndal ñëpp ak Ama Baldé ay ñoom ñooy toog ak Ama Baldé di yendoog Ama Baldé man may toog ak Modou Lo di yendoog Modou Lo te bu ñu toogee dañuy am jàmm bokk ndey bokk baay mais bu laamu jotee ku ne toog seep nga sport national voilà nañ nañ xam ni àdduna du violence gis nga man xeexuma cicatrice bëgguma ko man damaa bëgg sama bopp dama bëgg di sol rafet di xeeñ lu neex bëgguma am dagg-dagg dama bëgg da nga diñ dama diñ xeexuma sport bi sport national xuloo ko moom sunu culture eh, xeexuma xulowuma ku ma tooñ baal naa la ku ma saaga baal naa la Modou Lo rek laay moo Lo laa bëgg moom laay faral mais nag lépp si fair play laa ko teg comprendre nga man nag man maa ngi lancé ñëpp appel képp ko nga xamante ngi ak yow si àdduna jàppal ni bu làmb amee na bu jeexee jeex na yi naa jàmm ñëpp ñu bokk ndey bokk baay nañ yaraat suñu bopp yaraat suñu jëmm yi yaraat suñu xel yi xam ne l'esprit sain dans un corps ni affaire xel mu sell daal dafa baax si doomu aadama ak dal ak teey ak respect lu mu la may lu ko xañ Ama Baldé suma frère la maa koy nuyu di ko ñaanal jàmm booy ñaar di ko ñaanal jàmm seen supporter ñoom ñëpp sumay xarit lañ seen xarit laa yal nañu yàlla defal ñëpp jàmm ak yar ak teggin mu mel ni dugg si jàmm génn si jàmm Modou Lo yàlla may ko ndam si ñaan ñëpp muy Ama Baldé muy Boy Niang ñoom ñaar ñëpp dina bëre ak ñoom yàlla na ko yàlla may ndam lu sedd guy si ñoom ñaar ñëpp waaw incha allahu rabbi mel ni l'émission tire à sa noonu rek la ñuy jox pencum làmb la gis ngeen demoon nañ leen kër yaay booy Niang daa di waxtaan ak moom làmb dana feeñal lu ne dana jël képp koo xam ne yaa ngi ci biir làmb tey bégal làmb ndax wax naa ko sport national la culture la ñoo ko moom di aada ak cosaan wan l'émission Tir à san fin tey bi ma ñëwee maa ngi fekk sa koñ ñëpp génn jeunesse bi ñoom ñëpp taxaw vraiment nga juddoo yëmbal lan ngay wax ñooñu ak lan ngay wax le Dakarois 221 fii ci yëmbal noonu. waaw yéen di leen wax ni yéen moom yen yow ak yàlla yor maa yar suma frère nga suma xarit nga ñu yàgg toog nga may sees si xam sama papa xam sama yaay xam nga bëgg ma di ma tiitaroo chaque jour maa ngi lay déglu nga may defal ay émission si télé bi di ma nuyu di ma sargal. yow suma xarit nga di la yóbbante tamit sa copain ne ko yi incha allah rabi na indi lu ko neex ñu jënd ko njaga njaga nee ñu ngi pare pour jàpp borom Rufisque waaw borom Rufisque man moom incha allah rabi dinaa si jàpp dinaa la jox xaalis nga jox ko mu jaay ay tige may ko ñu ko neex gars yi fi yëpp may toog naa lañ jox ay tige ñu ñëw dooleel ko ñu gis ni banlieue bi tamit euh, macha allah bi nu ñëwee gis nañ mbooloo mu yëpp a génn mën naa ni sama caméra bu jëloon fii day mel ni comme si que euh, ñu ngi kër kilifa euh, loolu lan moo la ko def. li ma def loolu mooy Ousmane Kane mooy sama baay Facha Mbaye sama jàllo jéeri sama ndey dafa liggéey yëmb. dama am yaay joo xamante ni. noor nawet kenn bañ. bu ma juddoo ba léegi musuma gis mu xeex musuma gis mu xuloo musuma gis mu mer man ni ma mel sama yaay laa sama papa nekk paa fii ma maru ma raflé wu ma maa ngi liggéey maa ngi sant yàlla am naa famille bu baax am naa ay frères yu baax am naa waajur yu baax fu ma neex laay jaar xam nga man du ku ne laay jël ah ndax samay émission ay star ay célébrité rek laay jëli waaye xale bii ma ba jëli mi ngi bokk ci bëkk rek dara maan aram loo maam Kumba Caam bañ penda paate penda noonu la ñuy def di ziar waa kër Serigne Babacar si ndax ku nekk xam na ni gàmmu annuel bi bi passé ziar bi gis nu mobilisation bi nu def kon l'émission tire à sa lan mooy sa kàddu gu mujj rek ndax ku nekk xam na ni bu nu tolloo fii rek euh, émission bi day du bëgg a jeex te ñu ngi may euh, wax ni émission bi jeex na ba nu. waa di sant waa yëmbal di leen tiitaroo di leen gën a yëmbal aw ma yëmbal. man ñi ma toogal nii ñoo ma fawandool ñoom laa am muy neex ñoom la. maa ngi nuyu Nees. waaw Nees ak Omar Dieng. waaw gars yëpp. Papa Ndiaye Lamine Touré Zoungale. ah beneen wax ni man seen beneen ni sama frère ni ma mel du ma mës su ma amee dërëm maa ngi yéen a koy bokk su ma amee ñaar dërëm maa ngi yéen koy bokk su ma amul maa ngi yéen a koy bokk di wax combat bi nag yëmbal ñu ngi koy wàcc 100 pour cent incha allah rabbi dinañ jël ay car dinañ defar ay t-shirt dinañ jox ñëpp ay billets ñu dem saani combat bi ma kañ lay doon mais dinañ ko def di wax tamit ba loo xamante ni yow laa ko yëgal yow laa ko wax fii laa ko waxee ren damay def man ma di kër bu mag biir yëmbal fii. danu ci ànd. defoon naa ko da ngay ñëw plateau. defoon naa ko daaw oh, mu réussir loolu mais na dafa am ñu ma ko bokkaloon mais ren nag man maa volontaire wu ma maa koy coordonné incha allah rabbi di seeti monsieur le maire. di ko wax ni nag seeti Seyna Aline Ngom min ka ilayka Samba Thioro Fall Samba Diaye Lenas ndax kii toog euh, développement jeunesse bi moo ko ñor. fii la juddoo fii la yaroo waaye artiste lu muy def dana ci jàpp jàngkat yi tamit lu ñuy def di waa kër Sidi Xaaji Malick dana ci jàpp noonu la koy defee ci yoonu murit tamit kon l'émission tire à sans boo amee rek looy wax lu war a yokk ci làmb ak lu ñu war a wàññi lan la nga jaare fa tàggoo rek waa di wax ni gaa yi ñëpp na am yar ñu ñëpp am yar parce que maa ngi dégg ay nit yi nekk Pikine des fois ñu wax wax lu ëpp nañ xam ni yar teggin moo nekk ci làmb yi nañ communiquer mu neex parce que yi moom bëri na ci dëkk bi léegi ba lu neex waay wax kon nag nañ yaraat suñuy kàddu yaraat suñu doxal suñu doxalin ak suñu taxawaay di leen sant di sant sa caméraman bu jigéen bu baax bi di leen ñaanal jàmm yéen moom maa ngi yéen far waaw kontaan naa kontaan naa di gërëm yëmbal gi yëpp di gërëm àdduna yëpp képp ku xam wan xarañ loo rek wan xarañ loo mu ngi lay sant di la gërëm yàlla yàlla def jàmm si réew mi ah di nuyu sama benn nag ñu koy wax Bunaama Wele Bunaama Wele transitaire bi ingénieur bi mu nekk koo xamante ni mu ngi taxawal benn entreprise boo xamante ni nag moom entreprise bu boppam la. dama koy seet si wàllu transit jàpp ci lamb si wàllu lépp ko oto booy génnee am conteneur loo bëgg mu defal la ko transitaire la ingénieur la bu na maa ngi lay nuyu de passage di nuyu ñëpp kontaan naa jaajëf. ay ca noonu rek lay demee mu mel ni pencum làmb dana nu pencoo dana nu waxtaan kepp koo xamante ni rek bokk na ci biir làmb tey nag xale bi nu yàlla loon wax na ci xam-xam ci lu bari. wax na làmb ni mu war a doxee ci feer play ci kan entre euh, Modou Xarañ loo ak ki nga xam ne nii mooy Boy Niang mu mel ni nag ki woon micro bi mooy gitteeg Momori taaw Momori Momori Medum Ndaam sandee la combaan mi bakkoon damel boore gàddam émission bi nii rek lay demee resté écosté ñu daal di leen jëlee li leneen kon maate bu jot rek pencum làmb nii lay def bu ko defee nag ñu daal di leen dëgtal lépp loo xam ne nii am na ci làmb ngeen àndoon ceeg Xaadim Bamba Seck